asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk si ak santam eh, di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd lool te ànd ak wér barke borom Touba eh, tey ji nag ñu ngi fii saam ci opération bi nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy amal ñaari at yi yëpp muy opération leeral ginnaaw bi nga xamante ne bi Touba ca kanam ay projet am éclairage public da cee bokk muy leeral euh, mbedd yi euh, loolu nag moo sabab daaw ñu indi woon fi 1960 làmp monté woon ko ci quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci biir corniche bi euh, ren ji nag ñu indi 3000 làmp mille làmp yi dañoo jël xaaj bi moonte ko ci biir corniche bi beneen xaaj bi ñu génn ko biti corniche bi génn gi ñu ko génn de biti corniche gi nag loolu moo sabab ñu nekk fii tey ci saam euh, saamu Sëñ Abdou Latif fi la ñuy monter fas yéene fee monter tey euh, quatre-vingt-dix yoo xam ne incha allah bu guddee bu tàkkee euh, ñëpp danañ xam ne Touba ca kanam jaar na fi démb rek ñu ngi xëyoon ca mbaar yi Madiana ci guddi gi ñëpp gis nañ ne foofu na mu mel masu ne mel ci ab leeraay ndax problème insécurité moom ku dëkk Touba rek yaa ngi ko dégg ci mbaar ya te booy xeex insécurité li ci jiitu mooy leeral muy éclairage bi te loolu bañ ko defee démb waxuma la insécurité bi waaye même ñiy jaay foofu sax wax nañu ñoom dañuy guddee wàcc ndax bu njëkk fu timis jotee rek marché bi lëndëm kenn du fa ñeme waaye démb jul nañ nga pare sax marché bu mel ni marché bëccëg euh, noonu nag lañ ko bas yi nañ ko fas yéenee toftalee ci mbooleem dëkk bi euh, ñuy xamal askan wépp ne Touba ci kanam moom balaa bàyyi Touba dafa leer naññ lii nag ab tàmm di la waaye incha allah at mu jot euh, dana am quota boo xam ne Touba ci kanam dana ko def ci biir dëkk bi mu jëm ci wàllu éclairage public daaw 1960 la woon euh, ren 3000 lampes la bii di ñëw tamit incha allah dana ko ëpp bala ñoo bàyyi daal dëkk bi dana daj kàpp incha allah ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal lu jëm ci wàllu lampadaires yi ay lampadaires yoo xam ne LED la LED cent watt yoo xam ne ñi ñu ko jaay dañu ko garantir sur sur deux ans Euh, lamp yi li muy consommé ci courant bariwut ay LED la bokkut ak lamp yi nga xam ne moo fi newoon muy sodium la ndax yooyu ay deux la yoo xam ne LED la euh, day leer nañ te li muy consommé ci courant bariwut te durée de bi tamit euh, yàgg na lamp yi tamit lamp yoo xam ne moom mooy taal boppam suñ ne taal boppam dafa am capteur buñ ci def boo xam ne moom fu mu lëndëmee rek lamp yi day tàkk fu mu leeree mu fayal boppam nga xam ne du jar ñu ne dañuy wut horloge boo xam ne ci lañ ko réglé bu heure bi jotee mu tàkk bu heure bi jotee mu fay déedéet dañ ko liggéeyal ak capteur boo xam ne dafa mel ni bët buy xool fu mu mee rek mu tàkk mu xippi xool fu mu leeree mu gëmmaat kon loolu mooy caractéristique gu lamp yi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne euh, lii nii nag li ñu ko may yëpp mooy ñaar téeméer yi nga xam ne euh, murid yi ñu ngi koy joxe weeru jot kon dañuy def duñ def lu dul soññ murid yi soññ Sénégal yi Eh, kenn ku ci nekk nga farlu ci lii te xam ne eh, bu ci ñëpp jàppee weeru jot ñaar téeméer yaakaar naa ne eh, liggéey bi dootu yem ci Touba sax waaye léegi tey mu commencé génn biir dëkk ndax ni ko sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal wootee ñaar téeméeri murit murit bu ci nekk weeru jot nga joxe ñaar téeméer loolu dafay nekk ñaari milliards at mi di ñaar fukki milliards ak ñeent yaakaar naa nag bu ñëpp wuysee lu ëpp ñaari milliards par weer sax mën nañ ko am te lii nga xam ne ñu ngi koy def nii ci dëkk bi euh, bañ tàmbalee woote Touba ci kanam ba léegi amaguñu ñaari milliards par weer kon nag jàpp naa ne bu ci ñëpp jàppee bañ am loolu kon waxuma la leeraayu dëkk bi waaye lépp loo xam ne dëkk bi soxla na ko rek ngir dundinu askan wi gën a jàpp ni kon Touba ci kanam dana fexe saafara loolu ñu ngi ciy woo ñëpp ñu gën cee góorgóorlu gën cee bàyyi xel te xam ne liggéey bi Sëriñ Touba la boo xam ne euh, kii fi nekk Sëriñ Touba gërëm na ko muy Sëriñ Mountakha wax na ne yàqin la am ne liggéey bi sëñ Touba nag na ko kon nag képp koo xam ne da ngaa bëgg a euh, dàkk bëgguk sëñ bi Touba ci kanam a ngi nii lu sëñ Touba nangu la lu sëñ Touba di bëgg la képp ku dugal sa alal daal na la wóor na teg nga ko ci loxol sëriñ Touba ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokki jullit di mbokki taalibe yi yéen ñi bàyyi xel seen télévision waar wi ñu ngi leen di nuyu baax euh, di nuyu mbokk yëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te yàggal ko fi lool ak mboolem njaboot suñu Tuubaa yëpp di ko ñaanal tamit Cheikh Abdoulahi yàlla buur xalifa Mamour Diarra borom saam mi borom penc mi suñu borom yàggal ko fi lool ak njabootu borom saam yëpp jërëjëf suñu jërëjëf euh, sëñ Basirou ci e, ñëw gu am solo gi nga xam ne ñëw nga ko fii ànd ak euh, ngir saytu wala nemmee ko liggéey Touba ci kanam bi nga xam ne ñi ngi koy def ci Touba gépp euh, depuis Eh, at yi yëpp wax dëgg yàlla liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def mbokki talib yëpp mën ci teg seen bët eh, ren nag ñu yaatal ko yaatal goo xam ne jéggi na doyo li jëm ci leeral dëkk bi yàlla def ñu ñëw tey nag ci penc Mamour Diarra borom saam ñëw ci saamu si Abdou Latif eh, in sedd leen ci cër bu rëy rëy ngir na xam ne Euh, dëkk bi ku fi waay li fi waay def Sëñ Tuubaa nga defal ñu am ci taxawaay bu réeré na wax dëgg yàlla ñoom it ñëw fi tey dem ba léegi mi ngi noonu moo doon jël kàddu léegi mooy vice présidente bi di président fondateur ñëw fi dem waaye tey itam ñu nekkaat ci terrain bi ñu ànd ak ñoom liggéey bi foo leen foo xam ne fi lëndëm la wala foo xam ne insécurité la yóbbu nañ fa lamp ngir leeral barab bi te loolu tamit dañ ci sant yàlla baax di sant ndax ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ne fi wax dëgg yàlla xam nañ nit ñëwu jaar guddi benn kenn nit ñëwu foon jaar wala wala sax ngay xalaat di fi jaar ndax lëndëm gu lëndëm jàpp nañ fi ay saay-saay ba tàyyi nit tamit def na looxur ba ne tàyyi làqatu ci yenn barab yi te kenn du la gis ndax da cee bari barab yoo xam ne dëkkuñu ci ba noppi lëndëm nga xaw faa doy waar loolu bu ñu ko leeralee wax dëgg yàlla dañ sant bu baax a baax daanuñu ñu suñu suñu suñu njaboot gi kon dañuy ñëw a génn guddi ndax ak lëndëm te nag yaatu na tey ci dëkk bi fu ne yépp nañ fa ay lamp ngir xeex insécurité bi loolu nag wax dëgg yàlla liggéey Sëriñ Tuubaa la dañuy dañ koy liggéeyal liggéey lañ ko moom borom sàmm mi nga xam ne mooy borom dëkk bi suñu xool ne wax dëgg yàlla defee ba lamp yi tàkk njaboot yëpp danañ xam ne liñ fi liggéey seen xol dana sedd waaye daal da nga jàpp ne Sëriñ Bass moom euh, Tuubaa ci kanam moom amuñu leen seenu fay yàlla leen bàyyi bàyyi leen Sëriñ Tuubaa mu fay leen ndax liñ liñ ñuy defal fii c'est la première fois ñun saam daanaka mën nañu wax ne dëkk bi liñ ñu boole ci dëkk bi bariwut bari na li fi masaan ñëw ñu sedd dañuy sedd bàyyi sàmm waaye wax dëgg yàlla ñoom depuis ban tàmbale ba léegi ñu ñi bàyyi xel baax a baax ci activité yëpp kon nag ñu leen sant baax a baax te yaakaar na ne leneen luy mën a ñëw tamit loo xam ne ngir njariñu Tuubaa la ngir Tuubaa jëm ci kanam saam duñ ci dellu ginnaaw ñoom Tuubaa ci kanam dañ ne geesu waaye tamit ñi nekk fii wax dëgg yàlla ay taalibe lañ ñoo xam ne tamit liggéey bi ñun ñoom ñoo ko fi nekk kenn mënu leen ci waar Tuubaa wax dëgg yàlla ndax maa ngi ci seen biir ànd ak ñoom guddee bëccëg bolog yi mu ngi ci koñ mbootaay yi ñëpp ñu ngi ci dagg jigéen ñi jàmbaar na lool wax dëgg yàlla waxtu wu ne ñu ngi dagg di jaayante te xaaruñu woon sax ñu defal leen dara waaye dañ doon jaayante ngir jëm Sëriñ Tuubaa kon nag leen indilee lii nag kon yàlla na rafet na wax yàlla kon ñu sant leen baax a baax te xam leen daal li ñuy def suñ bopp ñu ko defal ndax dëkk Sëriñ Tuubaa bi ku ci mën a góorgóorlu ba leeral ko wala nga jagal ko ci lu mën a doon rek jàppal na yaa ci yoon yi nga xam ne ni ko suñu Tuubaa bëggee woon ndax sëñ bi ne ñooy suñuy waajur sëñ Abdul Xaadir ne mooy chef de village bi ak njaboot gi ñëpp sëñ Cheikh mi kilifa borom dëkk bi sant nañ def ñoo ko waroon def kon sëñ bi ne na ci gàttal dëkk bi yëpp ñu gën a forlu baax a baax ci Tuubaa ci kanam gi gën cee jàpp di dagg ci tike yi di ci góorgóorlu bu baax a baax te xam ne luñ ci def suñu tool lañ ko defal mooy suñu tool àllarba loolu suñ bi digal ku fi dëkk rek nga bàyyi xel baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu